Buuse maa lay nuyu parce que ku xam Buuse xam ni doomu géejawaay la fépp fu ti dem drapeau géejawaay lay défendre Père la nekk doomu géejawaay doon symbole ci géejawaay euh, génn àdduna àddunaam ban yëg-yëg nga ci am noo ko yëgee. waaw yëg-yëg bi ma ci am mooy yëg-yëg bi ci mbokk jullit yëpp am mooy am nañ tiis am naxar waaye ku lu naf seen saayir xate mawt bakkan bu mos dund moom di mos dee yàlla moo wax loolu ah, dañ naan rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla mooy dogal te lu mu dogal rek dañu koy nangu amaana tey lii mu def moo gën te per Balla nekkoon na nit ku yiw nit ku baax nit ku dëdd woon àdduna koo xam ne déggoo ko ci daraay àdduna mosoo koo dégg mu wax lu ñaaw mosoo koo dégg mu wax loo xam ne dañ ko koy xeebee te lépp lu muy wax rek mooy defar ak boole te doomu jàmbur moo ko gënaloon doom yi mu am moo tax tey doomam boo ko gisee yuusu mu taar la ci làmb lool rek la ndax day am ñaari combat wala ñetti combat jël ko jox ko doomu jàmbur ñu bëre ko bàyyi yuusu te loolu tey baax rek a koy def ba pare yamale ñëpp foo ko gis danaan la sama doom nga ah dama laa bëgg fexeel tekki fexeel lii defal lii ah chaque jour rek encouragement la lay def tey dañuy bëgg tey ñaanal ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana yóbbu ko ci àjjana yi firdawsi mu dajeeg xam nga àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi ndax mérité na ko te yàlla dina ko defal incha allah ay saraxam yàgg ci njabootam. daan ay kàddu yéen ñaar. waaw bari na mais gëj naa ko gis nag parce que bi ma dama xam man nekkuma fi mais dama ko doon fekk mbaar ma fële euh, stade Amadou Barry falaa ko doon fekk ci biir mbaar mi foofu mu toog yenn saa yi ma wàcc gis ko yenn saa yi ma romb tàllal ko loxo mu ne ma Ketchup am nga yooyu loolu moom waaw sama père la daal. la dénk loo xamante ne jàppoon nga ni lii kat euh, daan naa ko fàttaliku ci moom daan na ma ko mooy am leen jom rek yéen ñëpp benn ngeen booloo leen mbëri géejawaay ah booloo leen yéen a ngi gis tey li mu doon wax rek. gis ngeen Balla Gaye 2 tey ñëpp a ngi ko naw ci làmb fexe leen ngeen tegu ci tànk yooyu respecté seen i di teel a tëdd yooyu moom daf ko tàmmoon di wax te ñu ngi ko koy waaw loolu suñu xel daal du jóg ci moom Père Balla waaw baax xale yi fi nekk ndax wolof daf ne bul mujjee puso bi ba pare mu réer sa loxo ñu ci bari jàppoon nañu ni Père Balla dëgg-dëgg mooy écurie bi est-ce que fi mu toll nii dem na bàyyi leen ginnaaw écurie bi ñoom ñi fa war a nekk surtout seen mag Balla gay 2 ban taxawaay la war a am ci xale yi. waaw Balla moom li ko war kenn du ko wax ndax xam na lu baax ba pare xam nga nit ki moom boo xamee lu baax kenn du la digal lu baax ndax xam na lu baax te mi ngi koy def xam na li ko war ci écrit bi xam na ni moom moo ko moom. gay Gaye 200 moom tey écrit bi du dem fenn Balla Gaye moo yàlla yàlla mooy dogal yàlla moom bu dogalee da ngay nangu rek bu dogalee nga bañ moom yow mii la fiy jëlee. Balla Gaye 2 yàlla da koo samp ci réew mi jamono ji muy def lu baax baax écrit bi fu mu nekk nii écrit Balla Gaye 2 écrit père Balla Balla Gaye tax muy dox. bu dul Balla Gaye du dox loolu moom yàllaa ko def ci moom symbole bi tey mu dem ba retraité it bu fa toogul di ko gérer du dox kon tey yàlla comme que loolu la def muy monument bi dañ koy ñaaxaar rek nag xam nañ ne loolu lay def waaye mu gën a uuf njaboot gi jàppale leen ku ci am kombaa muy dem di entraîné ji ak ñoom di nekk ak ñoom di leen encouragé di leen defal leen per Balla doon defar parce que xam na li leen Père Balla doon defal te xam na li mu leen yéene woon te dina ci dox ndax Balla moom ku ko xam-xam ne lu baax rek lay def jërëjëf